والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه جميعا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk lesinnya ke feke gua ge lesinnya ke peh sinnya ke feke gua ge nyak ke peh ñun ñi itam sun feke gi du ko am peh deglo len ak deglo da di nyanyi allah bis bii yàlla nañ ko yàlla yàgg a fekkeloo ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ñi ngi nuyu ñi fi teew ñépp ak ñi fi bëggoon a teew te teewul ndax foo bëgg a teew teew ki teewal ñëpp rekk ko man keneen ku dul ki teewal ñépp da nga bëgg a teew foorul teew kon nag moom moomu yeeyoo cant boobu ñoo nga ko koy delloo ci sunu kemtalaay kàttan waaye du sax ca na mu toll moom suñu borom ñu jiital ci nuyoo bi nag boroom kër gii nga xam ni moo fi bàyyikoo te des fi dégg léegi ñii sëriñ Nogay waaye sa yaram day daw dangay xam ni boroom kër gi kontaan na lool fa mu tëdd kon ñu ngi ñaan yàlla na yàlla yokk ay leeram moom ñam fa nekkal ñépp te taas ñu ci seen barke waykat nii lañ koy xame man bi mu ñëwee fekk xale yi di way dama ne ah Mansour way sàmba way ba ma booba laa daam ndax seen way yooyu kenn xamul way yi mu doon tabaarakallah yal na yàlla musal leen sëñ la way ñëw nag di leen yéen ay géer yu way ngeen xaar leen ma wan leen mu nuy wayee daal ciy dugal yi fi ngéwalam waaye loolay xam ne di fekk na fi ay géer yu mën a way fa tabaarakallaa waaye bi ñuy dégloo nogay ah xam nañ ne way daal fa tabaarakallaa ma nga fa mu nekkoon kon yéen ñëpp yal yàlla fay day wane avancement kër gi gis nga ane diw ñi ni dem na fu mu jëm ci soxlaam ñëpp toog di la xaar boo nee ak agsi war nañoo xam loo wuti woon ah boobu wax day defe naa ni déggu leen kon baax na ñu nuyu nag soxna Bintu Dia ak soxna Faati Guèye ak ñi ñu bokkal kër gi ñëpp gis nga soxna yooyu jar nañoo nuyu jar nañoo sant jar nañoo gërëm ab tool bu melee ne dañ koo ñagul te jur ga wër ko te jur ga kenn sàmmu leen te tool ba dara ruuru ca war ngaa xam ne am na ñàkk danga koo gisul déggu leen ma ay gone laay waxal booy bu wàccee niveau bi dama ni ab tool bu ñu ko yoree te gisoo ab ñag wër te jur gu ko wër gisoo benn sàmm gi leen sàmm te jur ga dugg ne ca tool ba war ngaa xam ne tool ba am na ñàkk da nga koo gisul soxna bintu jàpp day doomu wàlliyu ndax baayam di sëriñ mbay jàpp xam ngeen kañ laa ko xam quatre-vingt-dix at mi sama maam raagi nelawee ci laa xam baay bay ja boobu xam ngeen ñaataat laa am booba bu ma juumul maa ngi am dix-huit yàlla dogal ma defa dem mu may ñaanal dama daan yolleeku booba Baye Mbaye am na am na nu muy seete noo xam ni seetu wàlliyu la damay xool ni li muy seete bokkut ak li mu lay wax te mboolem lu mu ma waxoon man gis naa ko waaye li ma gisagul li ma gis wax na ni ma danaa ko gis nitu yàlla boo xam ni lu sëriñ def walla doomam rekk daanaka yéemewul ku xam kan mooy Baye Mbaye Dia ndax mënees na koo gën a siiw ci gox waaye siiwaayu gox baax na lool waaye fexe ba ñi ci gox yépp xam la moo gën a wóor daañu la xam te siiw ndax gox boo jëm am na ku ko ŋànk ci nitu yàlla yi waaye mbay ja nitu yàlla yépp a ko xam nekkoon góor gu maandu te bari xam-xam xam-xam ak téere yu bare bokkul xam ngeen jàng téere yu bare lan la dalay jàngal mu ne amee xam-xam bokkut ak xam-xam waaye mbay ja dafa amoon xam-xam waaye li ci gën a yéeme mooy dafa daan jëfe xam-xam ba ndax fa aalimun bi ilmihi lam ya'malan muaddabun min qabli ubbaadil wathan loolu moo daloon Baye Mbaye Dia nekkoon nit ku ragal yàlla xam nga ni ragal yàlla moo tax lu mu gën a jege boroomam xel ma di gën a dal nit bu wilaaya sàng ak bu seytaane sàng xam nga noo koy xam mbubb moo xam ne saytaane loo ko solal lu mu gën a yàgg day gën a tilim xamal ni wàlliyu yàlla lu mu man wàlliyu saytaane man na waaw lenn rek la ñu wuutee mooy wàlliyu saytaane du teg tànkam ci kaw sunna mu wàlliyu yàlla du wàcc sunna mu beneen karaama bu wàlliyu di jaay sa wàlliyu saytaane man na moo tax man leen ñaari mbubb yi bokkul mbubb mi nga xam ni wilaaya moo la ko sonal bokkut ak mbubb mi nga xam ni wilaaya seytaani moo la ko sonal moo la ko sonal ni nga leen di ràññalee mooy mbubbum wilaaya lu mu gën a yàgg day gën a leer di gën a set mbubbum seytaani lu mu gën a yàgg day gën a tibb loolu bu ko jàppee mbubb yi ñu sol noonu de waxuma mbubb yii de di gën a jege sa boroom di gën a jege dee di gën a dal kooku wàllu yàlla la bàyyi mbay de noonu la moo ko dal kon yal na yàlla taasu ci barkeel yal na yàlla barkeel njabootam yokk barkeel sax ndax ne njaboot barkeel njaboot du kaat kaat yu bare ndax kat kat lu ñu bare bare bare bare bare bare day xëy mel na benn mus fee nekk ndax lu ñu bare bare benn ngay war waaye benn boobu sax danga nga mujj boo ca waree dañ la jaay yéegee étage yi lu ñu bare bare bare bare ci benn ngay tëdd te dana mujj yàgg dootoo yegg ca kaw dañ naan nañ nañ ko yemale bi ci suuf ndax tànk yi tax mënatu la yéeg ba yàgg ñu naan nan ko wàccee lal bi ndax mënatul yéeg ci kaw ba yàgg ñu naan nan koy lalal dorog bu ñuul bi ndax moo gën a ñemee tili da ngay gis man sama lal dama koy lal ba mu doro bu weex tàll dal xëcc tàndar ko ba mu tàlli man baax na yaa ki koy tàndara dana jekk ba yaa ñu ne di lalal mu ñu kukk ndax naan moo gën a lal ci wax nga dafa am mu wax iya. loo xam ne dalul borom kër gi dalul baay mbay ja dalul faatu géy dalul soxna bintu ja yaa dan yaa ayuha alladina amanu laa tulhikum amwaalukum ñi nañ xam ne nag xafsu laay jàng jaagu ma war laa tulhikum amwaalukum wala awlaadukum an zikri ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون سونا فاتوا من يالا دان كوني لان لا ني من انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت ويقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين yàlla ni non amatul sens walan yuaxir allahu nafsan isaa jaa ajaluha wallahu xabiru bima taamaluun ci gàttal yàlla nee na yéen ñi nga xam ne nee ngeen yéen a ma gëm ñaar bu mu leen teg pression ba ngeen fàtte ma man kenn nee na ñaar yi gën a dangereux gën a gaaw a bewloo nit gën a gaaw a tax nit fàtte sunu borom mooy doom ak alal doom bu la jiitalee daan la ko yaral te du la jariñ alal bu la jiitalee daañ ko defar te du la jariñ yàlla ni kon loolu bu mu tax ngeen dem ba yàgg ngeen fàtte ma ma yàlla ni képp ku def loolu yow yaa perte àddina ak àllaaxira yàlla ni seen tuub si ngeen di yor dee leen ko jël di ci jariñ ñi ko ñi ko moom gis nga xaalis boo gis mu koy denc du ko jox kenn dafa fàtte li ko indi ci loxoom xaalis boo gis mu denc ko rek mooy ci jërëjëf Dia. mu téye ko rek mooy ci nangu wu ci dimbali kenn daa fàttali ko indi ci loxam këyit woo xam sa bàyyi defaru fekkewul bañ koy defar xamul fu ñu ko defar sa maam ak maamaatam sa ndey ak ndeyam ak seeni ndey kenn fekkiwul bañ koy defar kenn xamul fu ñu ko defar nga téye naan sama nangam te ñaata nit ko moom mu door a agsi ci yow boo demee sax sa papa ko ji ko moom wala yow mi téye li di ko dama boo demee jaarul na say loxo daal kan mooy ci mën a waat ni téeméer bii kii bu jox ma jaaru woon ci ma wala mu jaar seen na ko yàlla nag anfiqu mimmaa razaqnaakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mawt nee nag àddina kum gis kum xasa nax koo gis nax ku àddina nax ba pare koo gis nax waaye ci ngay nax bis bu geesoo xam ne àddina nax na la yaa ngi dégg dana la fay nax yi ko naxoon ndax gis nga adina ko gis mu jaaxal ko adina jaaxal ko kep ko gis adina jaaxal ko dafa togn adina rek waye boppam a ko jëkk a ndax bu la sa bopp jaaxal won da nga fexé ba adina du la jaaxal yàlla ne li ngeen yor dee len ci dimbali jaar ko gis ñu naan du am dara ndax mëna joxe ak joom la nit lu mu joxe loola la moom yàllaa ko wax ci aay bi ma wax léegi bis bu set ma ni leen compte yi dafa yàq réew banque bu ne nga ubbi fa compte te la fa nekk boo ko dajalee mënut a jëndum baax la nekk ci banque yéeg boo ko te compte boo ko dajalee boo ci jëndee am mbaam ah danga nga desal borom junni boo muy tudd te xam ngeen mbaam lu tax mu gën a yomb ci jur gi mu tolloo na liggéey di ndey dafa liggéeyee di ndey waaw bu fi mag nekkoon dana xam li ma wax jur gi mu tolloo yépp moo ci gën a yomb bëre indil ma ku gën a yomb mbaam te toll na mbaam ah kat mbaa ko tolluwul na mbaa dama ni jur gi mu tolloo laa wax mbaam ko man nga koo war ah mbaam yi mënoo koo war kon kay du maasam damaa bëgg ngeen xàmmee ak maas ak nawle ak nàkk bopp bokkuñu dafa am lu wala di wax mas am lu ñuy wax nawle am lu wax natt ngo waaw kay ak mas moy lan moy ki nga bokkal génération da ngay na maase ak judd ak mas nak waru la warul ak warul te waral ak àndandoo hmm. déedéet ak mas wurut a waral ak àndandoo gone koo gis ngay ca baax bàyyi ba baax te moom baaxul ak maasa ko soppi natt ngoom nga may laaj natt ngoom da ngay àttan fukki culey ceeb ceeb nga mën a financé deux millions kii mën a financé deux millions kooku ay natt ngoom ngeen yéen a tolloo man man loolu la wolof naa natt ngoom nawle da ngeen di bokkub dañ naan diw nday ja gor la baay ba gor la kee nday ja gor la baay ba gor la même suñu maasewul ay ay nawle lañ déggu ma de ay nawle nag gone nga dafay nabi jabar fàtte ni fa mu dem defa nabi ñoo ñëw moomoon ndeyam ak jéeréet xam nga nogay wax la sa bopp ak wan la sa bopp bu la ci gën ba mu demee di nabi jabar ñëw góor gi woo ko mu ñëw góor gi teg piliyaan ci digg ëtt bi ne ko doom kaay mu ne ko toogal ma doom lu la indi ci kër gi mu ne ko faatu ma te mii ci biir munu ko lum lay indi ci bi mun dama ko bëgg tak jabar munu ko demal jabal sa nday ak sa bay mu ñew ni nday jaak bay bi amna jabar bay bi ne ko fo amé jabar munu ko kër bay diw munu ko war ma sa ndey nga wax ko ci kanam ah denggali mo wax mu dem ni kon saa kaay wuy saa baay yaay ji génn fekk baay ji toog ci ëtt bi ni ko diw yi ne dafa am lu mu wax léegi na ko waxaat sa kanam nga dégg yaay ji taxaw baay ji ne ko teegaa toog balaa doom ji balaa xale bee wax mun na wax rek ma dégg mu ne ko damaa demoon kër diw di fa nab jabar ma wax ko saa baay kooka ne ma demal nga woo sa ndey ak sa baay ma ñëw ko saa baay mu ne naa la woo wax la yaay ji teg taxaw ba yàgg mu ne groupe su mu ne ko yaay kontaante rek daa waral nii mu ne ko doom mag mu sukk ñaari bëti wóomu ma ngay màggal la ko tiim <laughs> ay doom bu ngeen déggoon ne may wax <laughs> doom ñi déggul bàyyi we ne ko doom demal mu dem ba yàgg mu ñëw soññewaat leen góor gaa nga toog ca këram di leen xaar ñu jekki ba yàgg ñu soññ gone gi soññi leen soññi leen ba ñettamal leen ñu daal di ànd noo ñoom ñett yónnee ci góor gi ni ko noo ngi ñëw góor gi teg fi ñaari sees ndeke da leen di cax góor gi lal der bi toog ci del bi jël ñaari chaise yi teg seen liin ñuy ñëw góor gi ñu bërit taxaw ci digg der bi ñu nuyoo mu joxe leen ñaari chaise tooguñu mu toog ci benn bi joxañ baay bi benn chaise baay bi toogu mu joxoñ leen der bi toog ci kaw yaay ji toogul baay bi toogul doom ji ni waaw bàyyi yéen toog leen ba nu wax li ñuy wax mu ne ko ki xam li ngay indi xam li ngay wax si ba nga koy daataan wax mu tontu la ba noppi jëratul ngay wax wax ja ni ndeyam loo yor bi ni gees ni ndey ji loo yor mu ne ko fukki dërëm ci sama poos mu ne ko jox ma làmb fukki dërëm ci poosam jox góor gi doon nabi jabar mu ko ñaar yi ngeen ma jox jënd naa ci seen nijaay no koy làmp li nga yor jox ko ki nga doon nabal jabar ki nga doon nab doomam mu jël ñaar fukk yooyu delloo la ko ne boo demee boo demee ñaar fukk yi jënd naa ci seen nijaay léegi mën nañoo ñibbi kooku dafa xàmmeewul nawle ak natt moom bu xamoon nawle du dem ci kër góor gi booy ànd doo diw a ngi def nangam tax danaa ko def déedéet neen patt ba xam diw moom man diw la fan la nii waaw fan la nii def na nangam rek na nii booy ànd da ngay ànd ak sa nawle booy jëfandoo da ngay jëfandoo sa natt ngoog booy jëfandoo jëfandool seetal sa nawle booy waxtaan toogal ak sa naas mm-hmm. Mm-hmm. Eh, wala ngaa paa bu toog ci xale dinaa waay góor bi moo ñàkk fayda waay xam nga ndeysaan dañ koo mas a def li tax ñu wàcc tool rek ngoon gi ñu toog saaf suñu gerte toog noonu ñuy def rek baykat bu bay ba ñëw ñu toog ba yàgg ñaan gone daa bàyyi am na gone yu net de gone yu net ay am na gone yu net daa bàyyi ngeen baal ma ci tur yi sama yaay ni bëri ni mujj yéen yéen a ñàkk fayda net am ci taabalu amintakaay yi xam ngeen ne mooy diw boobu ñu daan diwoo bu yàgg. saa nday defe ni diw dinañ ñu wax naan gone yi daa bay gone yi net nañu de sama yaay di bëri ni mu muy daal net daa jar a dem ba daa bay sax kaw daa bëri am net. ma ne ko si biir booba day saa dafa ñëw sa toogul ak maasam moo tax ma leen booy waxtaan ma ngaa leen ci sag maas booy ànd àndal ak sa nawle booy jëf jëfandal ak sa natt di leen lu muy wax bu la gétu yi jaaraat de leneen lay wax di leen ko allah yéen ñii bu ngeen gisee ngeen man lii ngeen man da ngeen a ànd ak ku man lii ngeen man loo bëgg a man àndal ak ku ko man loo bëgg a xam àndal ak ku ko ah d' accord su ko defee dafa jot léegi ñu am ay pas-pas yu wéri wéri ci li ñu nekk te ànd ak lii ngeen def nii léegi tey tey tey ak tey a ko waral diw mën naa way yomb na diw mën naa way yomb na waaye est-ce diw mën naa way est que diw mën naa way diw am na xam-xam yomb na waaye est am na xam-xam jàng téere yépp ñu tàntal la jox la micro ngay wax taxul nga xam xam-xam mbirum sunu borom la légat ga koy waye gone du ko xam du ko fekke ba di ca capp baaraam ndax danaa la wax noxee gis nga soow meew bu ca wàcc jógul du doonum soow mag ñi bu mu lay jàngal dañ lay nëbbal li la war a yàqal dañ lay nëbbal li la war a yàqal dañ lay nëbbal la la war a yàqal mag ngaa yàq nit ba ba defe ni yàqu na fekk da nga koo defar man ngaa defar ni defar da nga koo defar fekk da koo yàqal xam nga yàlla jubli ci loolu dafa leen a bëgg a wax ni sababa fi ne waaye defar ak yàq sama ko bii la ne allah akbar loolu. ku bëgg a defar defar rek ki defaru ba pare ku génn ci këram baax ah waaye bis bu seen nga dem ci kër borom kër ga baax lool am ku bon ku fa génn léeg nga dem kër goon borom kër ga daa bon lool am ku baax ku fa génn lo lepp yalla ngi bëgg wax ni dafa rek yaq ci lo xam na ne limu bëgg wax moy nani joxanti cër jàpp leen ci dimbu leen te comme nii ngeen def bu kenn denc lu morom soxla suba denc tay lu sa morom soxla suba benn waaye dafa ñëw ci benn nitu yàlla ni ko dama bëgg nga dimbali ma nitu yàlla bi yendoo jooy suba ba ngoon jox na ko waaye yendoo jooy suba ba ngoon ñëpp ñëw ni nitu yàlla bi lan moo tax nga jox kii li nga ko jox ba pare di jooy rek mu ni téye gi ma ko téye ba mu ñëw di ko laaj di ko laaj si looloo ma nag da nga yor ci ronu si jaada beeg ca banque ba ubbi compte yi doon naa leen ko wax léegi ñu laaj nga ni billaay walaay yoru cey suma koy bu la neexee sànqal ñor di sa mosuwaar foofu mu sëy bët pour wane ni boo koy doon jox ko mu dëdd nga ñu ko da ngay font yow sama dii mii ni daawee ba léegi di logique ba ñëw di waxaat leneen bitig bu ma am leb ko yàlla ne ah du noonu de man ma leb ba tey jii fayagoo am na julli yoo julliwul am na julli yoo julli te du noona te teewul maa ngi lay jéggal di la suturaal am na woor yoo woor du noona am na woor yoo wóoru te boobu léegi maa ngi lay suturaal kon nag banque yi dëgg la ubbi compte yi dëgg la waaye nee naa leen compte boo xam ne décompte rek a ciy mujj compte compte boo xam ne décompte rek a ciy mujj ngay compte rek da ca def bis dana ñëw ñu décompte compte bi compte li ci compte bi compte li nekk ci compte bi compte ñi war a am ci compte bi yépp compte lañ ca war